Nabouza is back ci biir émission bi di 100 people di len nuyu di len ziar di len jox waccu way tay nak ñu passé yéene ñew ci sen deuxième numéro émission 100 people ñu jégleel leen tout ce qui est information people ak fait divers yi nga xamné ñoo gëna fas ci biir internet bi. ñu tambalé ko nak actualité people du net ci kan lañuy tambalé ci kenn ko xamné nak momit ndaw la ndaw bu nekk fi ci mim réew way tamit ndaw la bo xamné bégal na xalé yi. bégal na mag yi bégal na tamit ku ne moom nag la ñuy daal di accueillir démba accueil bu mucc ay foofee ci aéroport AIBD waaye tamit mu amaat beneen accueil boo xam ne kenn mënu ko naatamle ci foofee nga xam ne fa dëkk di fi nga xam ne moo di Médina kooku kan la ñu ne Diaw Ketchup retour dans son quartier Diaw Ketchup accueilli par sa grand-mère maamam nag moo ko daal di accueillir gannaaw bi nga xamee ne nag dañ ko nominé ci li nga xam ne moom moo di talent africain awards foofee ca diwaanu Abidjan bi nga xamee ne nag euh, ci lay ñibbisi ci lañ ko daal di defal akay bu mucc ay ayëpp euh, foofee ca aéroport euh, AIBD waaye tamit maamam ba mu ñëwee defal na ko aada waaw sàmm na ki nga xam ne moo di sëtam toppatoo na ko defal ko aada tuural na ko ndox waaye tamit ñaanal nañ ko mu nekk fierté nag sénégalais yëpp ndax tamit sénégalais bu génnee fii dem ci bitim réew indi ñaari raaye nag jar na nag ñu daal di ko décorer raaye nag du yenn nag lu dul la li nga xam ne moom moo di meilleur web comédien euh, ci li nga xam ne moom moo di internet bi waaye tamit meilleur jeune talent africain lañ ko daal di numé muy deux raaye yoo xam ne indi na ko fii ci mim réew. Ah, ba tey ci actualité people tuy euh, net dañuy daal di ñëw nag ci li nga xam ne moom moo di euh, geste noble bi nga xam ne kan moo ko def du kenn ko dul la faramaaren booba nga xam ne nag min na ko ab yëfam la muy kan Wally Ballago Seck ku ko xam xam ne deuxième turam mooy daal di social mooy social mooy li nga xam ne mooy jàppale doomu aadama moom nag moom moo daal di jàppale ki nga xam ne moo di Djiby Ama gannaaw bi nga xam ne tëdd na lu toll di juróomi at ci feebar waaye nag jamono ji ji feebar bi daf ko gën a sonal nag muy ñaan ndimbal Wally Ballago Seck daal dina ko jox

moom ragné nañ ko lol ci mim réew mu nek métis cap ak sénégalais kan la nak Didier Edouard Didier do nak mom la domam daal di génn ci biir internet bi presque euh, tout nu dal di nag wane ay photom yo xamné lu yalla xam doyna na di ko exposer nak ci biir réseaux sociaux ñu né maillot de bain bin bin Liliane la fille de Didier Edouard Do à Dakar mu nek nak lo xamné a jamono ji mu ngi def euh, buzz du net anam yo xamne ñu bari rafetlu wuñu ko internet yu bari ñu ngi koy metetlu way tamit deyna wax ba fu doy warim xeyna nak nag viyam la lol la sentir wone yaramam wone ay awram ci bir internet bi anañ ko baye ak mom rek setan ko nonu ba xam fan lay mujjii buñ jógee ci ba ci benen actualité people du net la daldi daal rek daldi len ko baaxel benen ci benen nouvelle bu neex bi nak carnet blanc la daldi wax ki nga xam ne modi l'international U23 bobé di Ndiaga à amom nak daldi na takk jabar kañ la takk jabar nak mu ngi takk jabar li nga xam week-end bii ñu génn mom nak ñu U23 Ndiaga yad c'est invité dans le cercle fermé des hommes mariés

Ah, bu ñu ci actualité people dañuy daal di ñëw nag ci actualité fait divers bi nag dañ koy daal di tàmbalee rek tiis ak naqar boo xam ne nag aw ñoom la ñu daal di yeewaale kan moo ko am kenn rek la di Fou Malade alias Malal Tall moom mi nga xam ne kenn dootu ko présenté ci ci mim réew moo daal di ñàkk ki nga xam ne moo di grand frère am grand frère am nag la daal di ñàkk ah, mu ngi tudd nag Djiby Talla ah, Djiby Talla nag dafa feebaroon mu ngi gaañuwee ci hôpital. boobee nekk ca géejowaay muy eh, hôpital Roi Baudouin ah, fa la daal di faatoo moom nag bi muy gaañu am na lu toll ci cinquante ans mu nekk naqar ak tiis boo xam ne jamono ji famille Talla rawatina nag ki nga xam ne moo di Malal Tall moom nag la ñu daal di yeewoo mu nekk naqar ak tiis bu métti boo xam ne ah, moom la ñu daal di jàmmarloo ñun nag ñu ngi koy daal di jaale di ko wax eh, toutes nos condoléances man ci sama kàddu ak kàddu toute l'équipe de VIP People point net ñu ngi leen di jaale di leen wax ne massa àdduna nii la demal maa ngi ñëw la ba ci ci actualité fait divers ñu daal di ñëwaat ci beneen vidéo boo xam nak, nag jamono ji mu ngi daal di def buzz du net lu ko waral nag anam yi nga xam ne la xale bi jigéen bi defé ci soirée allah allah nak mom nak mo nekk ci 55 junior moom mooy jarbaatu Mbengue fay mom nak nga xamné da fay faral di teug tous les mardis à Las Calas bi nekk fi ci deuk bi ci Ndakaaru mom nak ci soirée am la ñu gis benn xale bi jigéen di fecc fecc

Euh, une femme d'immigrée engrossée par son amant <laughs> yéena ko déggandoo ñoo mbokk internet damay bàyyi rek ngeen daal ci eh, commenter daal ko waxal seen bopp ko lii doy na waar doy waar yem kenn ko faram voilà c'était votre émission 100 people di am contentement comme ni ma ko di di dalal site VIP people ak VIP info point net di am Dédia di jàkkaarloog yéen di leen jox dig daje ëllëg ci seen troisième numéro merci beaucoup à la prochaine bye.